Pape Jean du conseil municipal à la mairie de Médina euh, li fi xew c'est que Médina umpul kenn yàgg nañu wax à la mairie ñun amul ben délibération boo xam ñun conseil yi fekkeewuñu ko délibération bii ngeen di wax pour terrain Djaraf depuis 2014 waxuma 2018 depuis 2014 maire de la Médina Bamfal, Moussoul mësul wax lu leer mësul def lu leer mësul indil nit lenn lu leer ci bép biir conseil biñu bok té te li may wax ni waxumako pour mbirum politique parce que gis nga le contrat bi mu signé amul ben contrat bo xamné mës signé indil le conseil municipal ça n'a jamais existé Bamba Fall lu xam Médina soufi Médina alalu le Medina, Momuko. Medina, dañ koo fal ba pare Djangoul, jàngul xamul l'air lu leer mënu contrat là bi mu lié Seydi ça n'a rien à voir avec la Medina. Mon digente mon Seydi def son contrat ci suuf na jël xaalisu dem ci ay mbokam jaay ay kërëm dem fay ko Seydi terrain bi dañ koy récupérer dañ koy téyewat

wa Médina lan ngeen soxla ndax li baax na ci yéen buñ ne li lii na mu ne acca buñ ne li bon mu teggi loxoom loolu lañu ñu maire. amna alal bo xamne daf ko jot mok seedi ci souf alal bobu la bëgg wa waa Médina fay duñ ko fay duñ ko nangu man limay wax c'est clair je suis un conseil municipal je suis à la mairie amul luñ fa def te yeguñu fa Ndeye Sewu Ndour est là-bas ma <clears throat> Aram Diagne est là-bas ñom ñëpp c'est des conseillers kon mom li mu def ni tout est faux ñun buñu ñu neexoon ji suba lundi ñu dem xey la fa nekk ñu dégager ko jëlaat suñu terrain commencé suñu entraînement yef yi mi ngi bëgg a mi ngi bëgg yéx duñu accepter nak un simple Seydi ñoo na wa merina fi ku fi bondel ñun buñu ñu suba wallahi asim bu len neexee man je viens sol sama maillot lundi ñun ñëpp ñu dem football fofu boo xool ndax Seydi pour nous empêcher de jouer foofu suñu terrain suñu àll ñun ñoko mom la seule chose jarul muy goudou nañ leen sol suñu équipement dem entraîner foofu fuwal foofu ba saa yu ñu neexee kenn mënuñu ko tere. mais dama leen xamal rek dama leen xamal na rek ne man boog Ndeye Seynabou Ndour man man boog madame la maire Ndeye Seynabou Ndour sol ma mbuba conseil économique et social dama toog tey ci sama gox sol mbuba mi nga xam ne moom laa judduwoo ndax waa Médina ñooñu fa teg ku ci nekk da ngaa campagnal sa bopp bokk ci coalition ba yàlla jox la ca ndombal tànk nga nekk ca mairie ba. mais nekk ca mairie ba taxul nga xam lépp doon conseiller taxul nga xam lépp li ñu mën a xam rek mooy li nga xam ne moom la ñuy tiim ci salle de délibération bi toog waxtaane ko yëkkati sunu uh, loxo ñu koy voté voté ko ñu ko voté wul duñ ko voté ñun nag mënuñu nekk lu dul ci côté population bi defe naa ni ki dafa terrain waa Medina nekk fa équipe 11 ASC yëpp nekk fa di fa football ba nu juddoo ba léegi ñu fekk fa sunuy maam ak sunuy ñeneen di jàng ci école ba tey am terrain de football ñu def ko fa ñu xëy un bon jour nga ñëw ne dañu ñëw ci euh, conseil bi ne da nga bëgg jël terrain bi defaraat ko ñu ànd ceeg yow ba nga defar ko ndeke ne signé nga contrat bu xam ne dugul ci loxo Medina dama bëgg ngeen déglu ma bu baax li may wax dafa am solo contrat bi Bamba Fall jël signé ko. man maa ngi ni nëbbatuwuma te daw ma lenn dama koy wax pour ñëpp xam man fi waa Médina féete rek laa féete contrat bi Bamba Fall signé ñu jox ko xaalis bi mu jël ko nar ko jox keneen pour euh, privatiser ko ñun conseil yi sunu yoon nekku ci yoonu waa Médina nekku ci parce que bi ñu yëkkate xaalis bi di ko jox tàllaluñu ko jeunesse su Médina moom lañ ko jox loxo si poos moom moo koy fay du Médina moo koy fay du maire bi moo koy fay nay leen nit nag monsieur le ministre yaay sunu njiit bëgguñu wax lu xam ne daf ñuy tënk mais dama bëgg ngeen xam ne ka ngeen gis ñu ka ngeen bañ ko bañ ñu gis li ñuy liggéey ci suuf moo ëpp li ngeen di def yéen la ñu àndal yéen da am nag foo toll foo xam ne koor gi bu la jàppee dooto am doole boo waxee maanaam maa ngi nii di wax di miir parce que dama woor mais nit lii yéen baax na ci Médina ndax beneen yoon boo leen di tànn ti maire da ngeen tànn bolom xolu yërmande